woteem palug njiitu réew ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2024 Ousmane Sonko ay àndam ay soppeem ña fare ak moom fas ko yéene ngemb ne seen mbër fanweeri fan ci weeru décembre 2024 yéenekaay bi di réew mi moo xëy xamal ñu ko yéenekaay bi teg ci ni jot na moom Ousmane Sonko ci conseil constitutionnel convocation ngir tirage bi ñu amal ñeel nanuy toppalante dossier candidat yi ci wàllu wàññum seeni parrainage docteur Cheikh Tidiane Dièye nag yéenekaay bi ne mooy candidat de substitution bi maanaam mbërëg weccee gi bu fekkoon ni mbër mu mag mi daa mënut dem benn bokk yaakaar Sarr moom ku topp kàddu yi Abdoulaye Diouf Sarr coordonnateur des cadres APR ci yéenekaay bi di point actu di xam ne ñoom Benno Bokk Yaakaar amunu mbërum weccee benn mbër la ñu am du Ba Abdoulaye Diouf Sarr ci yéenekaay bi ne moom Amadou Ba am na qualité yépp ngir doon capitaine bu xeriñ ca nag mooy mbërëb mbooloom ñu taxaw ci réew mi ngir Sénégal yoonu émergence gi mu tegu mu des ca Abdoulaye Diouf Sarr wax it ci FONSIS gi nu ko dénk mu ne at mu amul fenn lañ def ndax mooy at mi ñu def deuxième meilleur résultat fukki at a mbër yi taxaw yépp nag ci bi ngir làmbi 2024 observateur ne yéenekaay bi di enquête yëpp xëy yéemu ci seenub lim lim record la enquête wax di lim bu fi mësul am lu jege juróom-ñeent fukk juróom ñu joxe dossier di xaar yéenekaay bi njort nag ak bari waayub lim bi faaw ay doublon maanaam ku pare ne ñaar ba lu ko ëpp ci candidat conseil constitutionnel bi dandalaat as lëf nag app bi jëm ci tàmbali gi mu waroon tàmbali tirage bi nañuy toppalante dossier candidat yi ngir wàññeek seeni parrain tribune xëy na ñoom kilifa yi sept sages yu conseil constitutionnel danoo jalgati yoon yéenekaay bi dafa blaaj ci ana lu waral jalgati gi dañuy des ak mbari yëgul yëpp ngir jiite Sénégal maître maître Moussa Diop ca la moom ab diire ngi mën a ci kaso bi moom mi jiite woon jamono Dakar dem dikk maître Diop ci biir kaso ba mu ne nag la jël xalimaam bind bâtonnier bu Paris ndax moom avocat bu ne ca boobee baro bu Paris source a ñëwaat ci bataaxal beeg ko waral la mu ci jublu mooy di fàttali ne procureur général près cour d'appel bu Ndakaaru moo waroon yore dossier bu nu sukkandikoo ci accord yi lënkale baro bu Paris ak Ndakaaru sàkku na ci njiital baro bu Paris mu bind naatangoom bu ci ne moo war loon ñu libéré ko état bu Sénégal moom ci fan yu néew fas yéene libéré yoon yi askan wi jaar ngir dugg si ndakaaru rawatina waa banlieue ak BRT bi ginnaaw TER bi bis bi le jour tuddewaat BRT bi bretelle rapide pour le transport fukki fan ak ñeent ci weeru janvier lañu koy dalloo ñu ne ci njiital président Macky Sall waaye démb premier ministre Amadou Ba moo jiite xew wi jëmoon ci BRT en scène yéene kaay bi jàppe ko xewum test ci wàllum bayre ngir moom bés bi le jour tegce ci boobépp transport bu nar a a yaatu ci ndakaaru Dakar dem dikk gi dalloo yeneen ñetti téeméer juróom-ñaar fukki bus le soleil ne ko waaw seen parc wota ñoom Dakar dem dikk gën na yokku 370 yeneen le quotidien xëy njàng mu kawe meeg fac lettres sciences humaines yu fas yéene ubbiwaati buntam ñetti fan ci weeru janvier ngir étudiants yi jàng si ci lu ñuy teew ci classe ya waaye kudd ba tey moom yore seen dëkkuwaay ak lekkin dafa tëjee waral yéenekaay bi njort seen ubbiwaat googee taq suuf at mii di jeex ci boppam nag 2023 sud quotidien moom gis ne moo taxoon suuf wala boog ci gàttal at mu neexul la ne bakkan yu bari yi ci rot ñàkk na ko noonu it ay trafic drogue ak yeneen ñu seddal xol yi defal xol yeeg pàttaliku ku tedd feesoon lool ci xol yi rawatina yu ndongo yeeg tànk yi sëriñ Saliou Mbàkke xaadimu rasul radiyallahu taala anhu direct news ne fukki at ak juróom-benn xaat bi mu làqook léegi moom ku tedd ki boroom su weesoo lislaam beeg ndonn lu mag li fi cheikh bi ba amuma leneen lu ma yitteel moom ku tedd ki daa wax it dénk leen ma gune yi ma def ci ñoom la cheikh bu mag bi defoon ci mag ñi yéenekaay bi direct news ñëwaat ci seede yu daw yaram yu sëriñ Muntaxa Basiir Mbàkke def ci moom sëriñ Saliou Mbàkke xaadimu rasul ba tey ci wàllu